salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp fas yéene ñëw ci pataas ak ay njëriñam pataas am na vitamine A ak vitamine B6 ak cuivre ak manganèse moo tax mu am solo lool ndax vitamine A baax na lool ci gis-gis ak wàllu der vitamine B6 baax na lool rawatina ci jigéen ju wérul dina leen dimbale ci jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel ci wàllu ëmb cuivre boobu mu am moo tax mu baax lool ci wàllu yax ak cartilage dina tax sa yaram gën a mën a jëfandikoo fer manganèse moom tam day dimbale yax li pataas di faj bu dee sibiru wala pays wala hépatite tàngalal ndox def ca xob ya di naan kaas suba ba ca ngoon day wér incha allah boole ca di lekk reen bu ñorul ba wet guy métti da koy faj baax na lool dalay aar ci xeeti tawati res yi xob yi dëbb ko def ko ci taab da koy reesal wala boole ko ak karité diw ko ci lakk-lakk day wér fa saasa incha allahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu